mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci seen émission démb tey tay ni ñu ko baax ko dimanche bu jot ci waxtu wi tey nag ñu am mbégte euh, dalal euh, professeur El Hadji Amadou Fall euh, moom du gan ci kër gi ndax fi la bokk ñuy waxtaanee nag Cheikh ant Diop xam ngeen ne ku wax weeru février sa xel day dem ci historien anthropologue bu mag boobu scientifique boo xam ne itam àddina yëpp tey nangu nañu xam-xamam muy nag doomu Sénégal bu génnoon àdduna juróom-ñaari fan weeru février atum 1986 université bu ndakaaru tey ñu tuddee ko ko mu def aussi ay jaloore yu baree bari ci jaar-jaaram waral nag ñu di ko delloo njukkal ci weeru février bi ñu nekk dalal ci nag koo xam ni fréquenté na ko xam na ko bu baax a baax euh, professeur El Hadji Amadou di chroniqueur ci kër gi euh, ñu lay dalal jàmm ci émission démb ak tey am mbégte lool di war a waxtaanee yow euh, ci professeur Cheikh Anta bismillah Euh, nuyu naa leen euh, soxna si Fatou Ngom di nuyu tamit kilifa rajo bi mm. ak télévision bi mm. di nuyu bépp nit buy yëngu ci rajo bi ak télévision bi ngir gën a leeral rek li nga xam ne lii daanaka moom la àddina soxal rawatina waa réew mi Sénégal. Mm-hmm. alors Cheikh Anta Diop ni ma ko waxee ku wax weeru février sa xel ci moom lay dem 1986 la génnoon àdduna ci Ndakaaru euh, bala ñuy sori. nga ñëw ak ñun ci sa relation d'abord ak moom yaak Cheikh Anta Diop lu doxoon seen diggante. <laughs> waaw gis nga de Cheikh moom yàlla dafa def rek. Euh, bi nu see jóge Sicap Baobab ci 1965 ñëw 67 euh, ñëw Sicap Serigne Cheikh du ma ne Sicap Rudis noonu lañ ko ñenn ñi di du mm. Sicap Serigne Cheikh Gaynde Fatma mm. ndax it dafa jëndoon kër yu bëree foofu si euh, gox bi mm. mais ko ay nitam ay taalibeem bu ma sañoon ba ba tax na tur bi daal man moom laa jàpp ne mm. nit dafay am loo xam ne daf fii daf si seetu gis si boppam mm-hmm. ndax Sicap Rydis wax dëgg yàlla amul dara lu mu tekki amul dara lu mu tekki te bëri na ay gox ci sunu réew yu mel noonu man daal Sicap Serigne Cheikh keneen ak keneen tamit nu xool ay fan it buñ ko mënoon tuddee yeneen kii nu xam ni koy tuddee waaye ay fan résidence ay fan daal loolu daal parenthèse la woon <laughs> maanaam dama ko ubbi woon weer pour weeral waaye Cheikh foofu mi euh, daanaka ndaw euh, ma gis ne bu ci kanam tuuti euh, ndeke kër koñ bi kër yaayu Cheikh Anta Diop la sunu maam maam Maguette Diop mm. waaw sunu diggante sunu kër kër gi daanaka bu matee téeméeri mètre fa yàlla di def yàlla di def ba noonu ñuy dëgg si ay wax ne kàngam Sénégal am na savant bi ma nekkee collège ñuy wax am na daje jaaxal na fa àddina wax na fa loo xam ne daanaka billaahi ñëpp jaaxle nañu si nit ku ñuul si cosaanam si yeneen ak yeneen hmm. yàlla def si loolu ay waxtaan rek ñu ne kii mooy këru yaayam te dana fii ñëw ba bés bi nu toogee noonu la fa ñëwee daanaka ndeesaan mu yoroon R R4 R4 la yoroon waaw <laughs> ak euh, kiyam mbokkam di xaritam di am di jàmmam euh, sunu papa ji tamit Mame Bara Diop waaw yàlla def euh, bi may déglu rajo voix de la révolution bu Conakry Guinée euh, bés bi bi RND déposé fa jëkk dégg ne Cheikh Anta déposé na ngir parti ma dellu si si ëllëg si gis rakkam muy Tafa Diop ma wax ak moom ma ne ko Cheikh am na ni moom si yëgu ko mu ne ma ah bu si lu si am danaa la ko ne ko waaw noonu daal la miinante ba ma gën a dugg kër gi yaay ji maam Maguette Diop jàpp ma comme sët mm. wax dëgg yàlla ma xooju foofu Euh, may li rek année 1983 maa ngi def sama stage CAP pour nekk jàngalekat mm. ci euh, daara yi ndaw yi mm. bu ma ñëwul waan sax maam sama maam bi maam Maguette Diop day yónni ngir ma ñëw ndax bu ma ñëwul nee na du dox mm. waaw gis nga rek xam nga kooku bokk naa si kër gi mm-hmm. waaw bokk na ci parti bi di dem ak ñëw te dafa am loo xam ne tamit du ma ko fàttee mukk li nu wax ci anecdote yi toog naa benn bes ci 1983 sama maam bi yónnee mu woosi ma mu ne ma bi ma ñëwee ma fekk fa benn góor mu ne ma kii àndal ak moom nga dem kër Cheikh Anta mu ne boo ko fekkee muy nelaw say yee ko <laughs> gis nga loolu ah. anecdote la mm-hmm. ndax ci waxtu boobu booru tisibaar ma ne ah kàngam bu mel ni Cheikh man ma yee man ngi nga xam ne tekkiwuma dara mu dëkk moom kenn nekk fa ah waaye gis nga bi nu demee jël kaar kar la ñu jël P10 bu ma fàttewul nu wàcc di dox ma xalaat ne li ma li ma sama maam bi sant diis na lool. Hmm. waaye tamit am na loo xam ne sañ naa ko ndax moo ma ko digal. Hmm. ndax xam naa lenn ci Cheikh Anta. Hmm. amul keneen ku mu gëm boromam sëriñam. waaye teg ci tamit yaayam. Hmm. yaayam waaw gëm na fonk na yaayam torop torop torop ndax moom benn la ci yaayam. Hmm. te gëm na loolu waaw vrai africain la gëm na loolu lu mu bu musaan tukki lu mu guddi guddi guddi dina ñëw nemmeeku kër gi euh, ni nekk foofu ñoom moor Diop ñoom Tafa Diop ñoom Eliman nag ñeneen euh, euh, ñu xam ne wax dëgg yàlla ñëw na te bu subaa danañ ko yëgal yaayam waaw. ah ma ne nag kon yaay ji a ma wax loolu danaa ko def hmm. keroog mu andee noonu laa ñëw si wa ma fëgg bunt bi amul sa sonnerie ndeysaan <laughs> amul sonnerie hmm. waaw wala bu amoon tamit paanoon na man ma fëgg jël sama jaaru fërg si porte métallique bi noonu la yeewoo bu mu yeewoo ñëw ak pyjama am ak ay marakisam daal ñu dalal te li mu njëkk wax mooy mbaa yàggu leen fi hmm. loolu tamit mu mu vraiment ah ba tey du ma ko fàttee mbaa yàggu leen fi xam nga jamono yooyu quartier yi bu ñuy wax si fan résidence ak kàngam yu fa waaw moom daal bi mu ñëwee li mu njëkkee mbaa yàggu leen fi yegg si leen yegg si leen yegg si leen faal yegg si leen ah, mu xamee kilifa bi tamit. Mhm. parce que kilifa bi moo doon caatu sëñ euh, si li mu tudd Cheikh Ibra waaw mhm. caatu Cheikh Ibra Fall. dëgg la laajte naa ko fan yi passé na génn na àddina mhm. ci at yi weesu rek yàggul lool waaw donc euh, noonu lan daal milité ci parti bi milité milité ci parti bi daanaka fukki at def naa ko ci parti bi ba Cheikh Anta bi mu génnee àddina mu fekk ma tamit euh, diwaan bi fii Ziguinchor maa ngi aussi di jàngale waaw donc euh, jàng naa ay téeréyam téeréyam yëpp daal wax dëgg yàlla jàng naa waaw hmm. <laughs> xëy na euh, nampuma ko mokkaluma ko lool ndax surtout am na yoo xam ne physique la mat science dëgg la waaye jot nañ si cof daal ak moom it mu leeral lu bëri ci ay séminaire de formation idéologique mm. tàggat xel yi nit ñi militants yi mm. loolu nun parti bi RND daanaka nun noo ko doon def ci loo xam ne ay anam yu sell yu rafet yu dal kii parce que moom Cheikh moo sum sa sa sa suñ yoon loolu mm. ñaan ko nit ñi ba pare ci biir waxtaan wi sax dafay naan nun ndaw yi nanuy laajte nanuy laajte mag ñi nanuy déglu ndax addina xale koy tabax xale yi nag il faut ñu yar leen ñu xooj leen si xam-xam nu leer nu dal ànd ak yiw. Mm. waaw loolu daal am naa loolu mën naa ko si wax. ci mm. Cheikh Anta. waaw digganteeg Cheikh Anta alors tey. Cheikh Anta euh, ku ko xamul ñëw ni la professeur El Hadj Amadou Fall ma souligné ne yow professeur euh, d'histoire nga tey. et de mhm. géographie. Euh, tey mhm. lan nga koy wax pour décrire Cheikh Anta Diop kan la woon moom Cheikh Anta Diop. waaw waaye dinaa gën a tamit leeral professeur tëbuma rek nekk professeur dafa am fu ma jaar jaar. Mm. Mm. te loolu yëpp ngir Cheikh ah. waaw nous sommes dafa participer ci sa waaw ñu ko ñenn ñi di waxee nous mm. sommes un effet un effet Cheikh dafa am li mu jiw li mu jiw si réew mi te bokk naa si ñooñu ak ñeneen ak ñeneen ma di ko ma di ko parce que loolu waaw dafa nu jox li ñuy wax appétit intellectuel appétit intellectuel nangu gëstu nangu jàng ànd ak dal nag ak yiw ak woyof euh, nekk naa euh, jàngalekat ci daara yu gën a féete suuf instituteur ma jóge fa xam ne war naa mën a wéy continuer waat sama wutim xam-xam ma jàll nekk professeur d'histoire et de géographie ci lycée Djignabo Ziguinchor ak lycée Limamoulaye waaw di gërëm nag kilifa yi fa newoon yëpp waaw si lu mel noonu surtout lycée Limamoulaye euh, sëñ bi moom Souleymane Jules Diop waaw ni mu tàggate woon lycée bi Euh, ma jógee fa tamit war def sama thèse jot du ma ko may noonu laa defee concours pour mën a am jot nekk dem nekk inspecteur de l'enseignement waaw noonu laa tàggatoo ak professeur d'histoire géo ci lycée yi hmm. ñëw def inspectorat hmm. ba noonu tamit mu amoon loo xam ne comme ni ma ko wax rek Cheikh Anta moo nu xooj ci loolu am gis-gis du pour bàkku wala pour leneen waaye pour man ak samay waajur samay waajur surtout waajur bu jigéen euh, kii nu nampal dëgg yarnu Euh, ma ne daal il ma jekkali mbir mi bu dee jekkali am na ma def thèse doctorat mm. en histoire waaw donc loolu di di ok alors si noonu daal buñ ma doon laaj Cheikh Anta man damay faral di wax ne tontu rek sama benn xarit camarade de longue date RND tamit si fan yi parce que dafa ne woon mu ma doon xaar ma def émission si Cheikh ma ne ko déet émission bi def ca Réew mi FM dafa am ligne rédactionnelle dama ko tuddee la Casamance vous parle munuma nag tëb nii informé wu ma kenn ma def benn émission bu kii yooyu ma ne looloo tax def ma ko waaye si ay anam a ah, danaa si ñëw gën a gëstu parce que am na leneen lu mu def si mm-hmm. ma ni ma man leen li may wax si Cheikh Anta man du ma wax xam-xamam sax xam-xamam mm-hmm. déedéet man li may gën a wax si xam Cheikh Anta li ma li ma jàpp dëgg dëgg dëgg mooy li ni tubaab naan humilité mm-hmm. woyofam waaw allahu akbar allahu akbar allahu akbar si humilité Cheikh Anta gisuma tey ci kàngam yi di yëngu ci mbirum politique wala leneen ku toll ku def ni meloon ni ni Cheikh Anta Mbaye humilité am waaw ak li mu ngànk yëpp ci xam-xam Cheikh Anta def na fukki at ak ñeent euh, tugal France waaye fukki at ak ñeent yooyu dafa ngànk xam-xam gis nga dinaay dégg sax ay nit di wax waaw lu tax jàngalewul ndax thèse am ndax nangam na ba gis nga Cheikh Anta du thèse moo ko taxoon jóg hmm. yeete ah, ndaw yi nit ñi ci li nga xam ne lii mooy soxal nit ku ñuul rawatina africain ñu jógee si noot bi ñu nekk gëstu xam. Hmm. waaw donc woyofam boobu beneen mbir la. beneen mbir la ñi nekkoon ci RND xam nañ ko bu nu dee wax dëgg rek rek rek rek dañuy def séminaire nga gis ay kàngam si ñu bokk secrétariat politique léeg nu mer si ay laaj yu nu def. daal di kii ba xaw a frustré maanaam merloo kii posé moom mooy jóg mu ne na ngeen bàyyi ndaw yi nu def li ñuy def nangam nangam laboratoire bi yóbbu naa fa ay nit du benn du ñaar fekk ko mu nekk ci souterrain parce que laboratoire dafa am souterrain mu nekk fa waaye bu dëggee ay bruit dafay génn mu laajte mu ñëw lan la nu nekkoon nii ak nii gis nga si saa si mën na toog waxtaan ak ñun ndaw ñi moo tax sax léeg ma ne Cheikh Anta li ko génnee àddina ci li ñuy wax ne coono dëgg-dëgg la woon ndax docteur Moustapha Diallo ki nekkoon ci adjoint am mm. seede na ko bi mu génnee àddina nee na Cheikh Anta wax na ko benn bés si fan yooyu ne dëgg dëgg dëgg dëgg sonn mm. waaw sonn boobu xëy na moo ko yóbbu waaye dama ne bu dee loolu nun ñi ndaw yi bokk nañ si ndax daaw nu ko bàyyi te musuñu woon ne musuñu woon ne dafa sonn hmm. waaw wala dem leen ba beneen déedéet déedéet déedéet te xam-xamam da koy weccoog nit ñi xoojoog nit ñi waaw gis nga am naa photo ak moom sax parce que du ma waxantu léeg-léeg ma wax nit ñi leen Cheikh Anta yàlla may na tamit hmm. loolu muy nataal am naa photo ak moom ak yeneen ñu ma àndaloon jamono yooyu ci këram réunion bu fa amoon ci biir añam lan ko laaj lan ko ñaan ne dañuy photo moom mu ne acca bisimilah noonu lan ñëw war ko kii yooyu dama ne daal euh, woyofam moom beneen mbir la waaw loolu laay jëkk jàpp moom ci Cheikh leneen li si des damay wax ne euh, rigueur morale waaw rigueur morale te kooku euh, président Abdou Diouf keroog bi ñuy def fukkeelu at bi mu génnee àddina moom sunu bor Cheikh Anta wuy ji boromam keroog ci foire Dakar maa nga fa dama bàyyeeku jigéen soor sa jël bato Joola jamono ñooy bato Joola ma ñëw yegg si dal dem foire ba keroog baat bu Abdou Diouf njëkk wax dafa ne homme d'une rigueur morale hmm. jamais prise en défaut waaw Cheikh Anta Diop a symbolisé véritablement l'homme africain waaw le réveil de l'Afrique kooku muy wax boo xam ne daanaka tënk na lépp ci Cheikh Anta rigueur morale hmm. waaw loolu moom kenn ki beneen li mooy lucidité stratégique pour le réveil de l'Afrique la lucidité stratégique pour le réveil de l'Afrique te kooku damay faral damay damay lim tamit benn kàngam Guy Landré Azoumé hmm. mu bind ben téere nu ne idéologie tribaliste et nation en Afrique moom Guy Landré Azoumé dafa ne dafa ne euh, la lucidité stratégique qui caractérise Cheikh Anta Diop mérite qu'on le lise avec précaution et sans a priori mu la pensée de cet auteur emprunte, emprunte des accents futuristes et audacieux que l'actuel piétinement de l'Afrique et la médiocrité politique triomphante peuvent conduire certains à considérer avec scepticisme. Il ajoute, Mom Azumé, dans, mais il s'agit à notre sens de possibilités d'édification que seuls des peuples indépendants et organisés justement peuvent entreprendre. Alors, donc, lucidité, rigueur politique, rigueur morale, euh, jamais prise en défaut. ensuite dafa am loo xam ne wax na ko te tey jii ni ba tey nit ñu topp nu ko nit ñu topp nu ko mooy si mbirum politique nit nit ñi di yëngoo si mbirum politique. Hmm. dafa yàgg waaw dafa yàgg wax ne nanu signé loo xam ne mooy code code de conduite. Hmm. code de conduite code d'honneur maanaam boo nee damay ànd ak nit kii tey ànd ak moom def lii wala lii lay yootu na ko doxal ba fi mu yegg ba fi nu sa borom may ne foo lay yegg waaye toog jikki-jikki nga cëppeelu nga jóge uh, ndeyjoor dem ba càmmoñ wala jóge càmmoñ surtout jóge càmmoñ bi ñi gën a dang lamiñ ñi seen lamiñ mel ni ay sart melelaan comme ni mu ko doon wax nga jéggi uh, uh, nu mu tudd sa gauche extrême gauche sa nga dem extrême droite nee na loolu na nit ñi am dal dal na nit ñi teey na nit ñi ànd ak xel ba daal di xaatim lëkkaloo bind li ñuy wax code d'honneur code de conduite parce que loolu dafa yàgg am ku def histoire politique ku Sénégal jàngub Sénégal ni mu doxee di nga xam ni loolu dañuy dañuy dañuy nax saay rek di nax mbooloo mi di caaxaane mbooloo mi di indi loo xam ne wax dëgg yàlla ay tooki doona rek lay indi waaw loolu moom yàgg na fee am trop trop trop trop donc moo tax ma ne man daal sama wargal sama sama sama ki ku mel ni Cheikh euh, Joe Wakaam Joe Wakaam di am na vidéo yuy jàll mel ni Joe Wakaam dafa laajte sax li muy wax moom mu ne waa Cheikh Anta mais de quoi est mort Cheikh maanaam nan lan lan moo rey Cheikh lan moo ko yóbbu ah mu tënk mu tënk daal di daal di mujj ne ak gen àddina Cheikh Anta Afrique yëpp a perte Afrique yëpp a perte moom mm-hmm. Jowakaam ku xam Jowakaam nga xam ne du waxantu du waxantu c'est un intellectuel debout waaw koo xam ne moom it humilité daf ko ŋànkoon daf ko ëmboon waaw gis nga loolu baat yu am solo la waaye gis nga rek dafa mel ni sunu réew mi euh, iñaane iñaanee nit ki li mu am nga iñaane ko topp si ñeneen ñeneen ay doxandeem ak yeneen loolu moom daf noo yàgg doo dafa yàgg doon suñu mandarga ragat rawatina nag même ci euh, xooju politique bi nu nekk nii nii nii nii waaw iñaan moom dafa am ba nga xam ne hmm. d'ailleurs Cheikh euh, ay nitu Afrique noo ko gën a xam gën koo bëgg gën koo euh, nitu Sénégal hmm. ndax rek dafa mel ni noonu pikir nañu dugal nañu benn daal feebar boo xam ne bii daanaka du mayu say am di jàmm say mbokk ki ñëw sa ngir tuuf la ngir nga mën a xool bu baax da koy mujj jëppi mm. di wax lu bon si moom mm. loolu daal mooy Cheikh Anta mm-hmm. moo ta li mu li mu encaissé wul li mu dajul si addina mm. amul waaw comme ni muy wax que n'a-t-on pas dit de moi que vous quand vous suivez Cheikh Anta ceci n'a pas fait ceci n'a pas ñuy wax ay teesam amul teesam teesam baaxul da ay kàngam ay jàngalekat sa dañ koy wax ñii ba tey ba tey yow koo xam ne 1960 Sénégal li mu soxla si intellectuel ci cadre kii ŋànk ay diplôme yoo xam ne bu ko bu ko bu tey bu doon koo xam ne kii lu ko neex mu wax bakku fëgg dënnam mais kenn du kenn du koy yegg yegg laa la wax ci aussi euh, nu mu tudd weeyu tànkam waxuma la nga naan da ngay ñëw di ko diir mbagg kenn kenn laa la wax ci jamono yooyu Afrique kooku ñëw sa réew nga ne du jàngale. Hmm. kooku ñëw nga ne nii tey nga toog yow sénégalais gëstu woo xamuloo ñaari ñaari baat ñaari mbir ci Cheikh Anta nga toog di wax ay waxul nax saxanda yu kenn xamul hmm. waaw moo tax ma ne la te loolu yëpp daf koo nangu toog laboratoire am isolé wu hmm. te bu ñu doon ñëw sa si laboratoire am di ñi ñëw tubaab yi nin ko fonkoon xam ah dama ne allahu akbar nit ki jërëjëf man de mooy sama kàngam hmm. bu nit ñi doon woote Karl Marx di woote la Marx di woote Lénine ñii Platon ñii Aristote ñi ni man de Cheikh Anta lay bakkoo moom lay muuroo moom lay parce que fi ma toll nii ginnaaw sunu borom li nu jox ak xel hmm. ak yar bi nu am ci lu biir kër hmm. lu ci bëri moom la hmm. waaw moo defar El Hadj Amadou waaw ak ñeneen ñu ma xam kooku Cheikh Anta la kooku Cheikh Anta la Cheikh Anta nekkoon également euh, scientifique ndax euh, dem na ci wàllu physique chimie def ci jàng yu am solo euh, bokk na ci ñu njëkk appliqué carbone 14 ci laboratoire ci atum 1963 bu ñu dee wax ci wàllum archéologie mais Cheikh Anta siiwee surtout ci gëstu yi mu doon def Euh, ci cosaanal Afrique lu jiitu xëy na lu yàgg yàgg colonisation parce que euh, jamono tolloon nañ ci ñu naan africain yi amuñu passé amuñu histoire mu wone ne nag Égypte euh, mhm. lépp luy der bu ñuul fa la cosaanoo gën a sori ci mbir mi sax ne humanité foofu la jugee alors Cheikh mhm. Anta ak njàngam moomu loo ñu ci mën a wax la mu ca daj fa mu ca jaar ak résultat bi nga xam ne ba léegi tey ci àddina ñu bari ñu ciy teeloo lu am solo waaw waaw xam nga sax léeg Euh, ñu bëre bu ñuy wax ci Cheikh Anta mm-hmm. <laughs> ba ci euh, taskati xibaar yi sax mm-hmm. dañuy yem ne historien la mm-hmm. waaw historien la ba gis Cheikh Anta naa la wax ne ci histoire licence la am licence licence en histoire waaye waaw licence en histoire kooku nu nit ñi xam ko mais dafa spécialisé wu ci histoire xam nga li may wax ne dañuy wax ne El Hadj Amadou Fall historien la ma ne lu tax ne historien parce que am na master maîtrise à l'époque ah, ah maîtrise waaw mais koo xam ne kii depuis cinquante ans mu ngi jàng mu ngi jàng histoire. Mm. te moom amul lijaasa bi. waa te xarañ si xuus si gis si indi si yeneen ay banqaas yu am solo. Mm-hmm. kooku mën noon a la. yaakaar naa ne mën nañ ko wax. Mm-hmm. du rek du rek euh, euh, nu mu tudd kuréel bi université. Euh, mooy joxe diplôme kii sociologue la. Mm. kii France prof la. kii lii la kii déedéet dama yaakaar ne bés bu nu demee bay gën a yeewu. Mm-hmm. mais euh, du lijaasa yooyu rek mooy defar nit. Mhm. waaw te Cheikh Anta licencié la en histoire waaye spécialiste la maanaam def see xarañ xarañ boo xam ne ñu am seen doctorat en histoire agrégation bu ñu ñëwee tey daanaka dañuy jëbbalu si moom kenn ci professeur euh, Iba Der Thiam bi ko mhm. jàppoon comme kàngam kooku nu xam si dara ndax sunu kàngam la woon moom professeur Iba Der Thiam waaw keroog bi ñu defee symposium sur sa vie et son si teg Euh, euh, matul at sax mu ji woo Cheikh Anta euh, école normale supérieure maa nga fa woon keroog guddi boobu keroog li mu wax ci Cheikh Anta ak ni mu ko seedee ñun xam nañ ci dara. Hmm. ak yeneen ak yeneen. waaw kooku dama bëgg wax bu weesoo historien bi ñuy wax. Hmm. Cheikh spécialiste la hmm. en physique. et chimie nucléaire. spécialiste chimie nucléaire. te gis nga waaw te xam nga loolu. mu ni ko wax ni il s'est spécialisé dans le laboratoire de chimie de nucléaire du Collège de France et le laboratoire de faible activité du CNRS a hmm. à Gif-sur-Yvette yaa ngi dégg loolu hmm. te keroog bi mu demee di def spécialis spécialisation ci euh, kii boobu laboratoire bi hmm. six mois la fa def six mois kàngam bi fa nekkoon Curie ne kii doy na sëkk kii c'est un génie waaw kii doy na sëkk loolu moo wax mooy yëg yëgal leen ko waaw six mois la fa def mu ne kii doy na sëkk lii mu gis ma liir sunu papa ji sunu maam ji moom Mamadou jaa mu bind benn article si jamono mu ne notre jeune compatriote Cheikh Anta Diop keroog bi français di essayer seen bomb atomique yaa ngi dëgg Cheikh Anta bokk na ci kàngam yi yi ñëwoon pour joxe seen abi waaw xam nga kooku kooku kooku <laughs> boo booy yaakaar ne da ngay wax historien pour dévaloriser ko yaa ngi nax sa bopp ah. donc biologie moléculaire dem na maanaam fi science médecine gën a xóotee xóotoo xóot mu gis nga loolu yëpp li tax mu jàngoon ko ŋànk ko. ngir delloo njukkal xeet Afrique xeetu xeetu nit ku ñuul won ne moom li mu mën li mu mën keneen ak keneen mën na ko Fatou Ngom mën na ko. Hmm. waaw Diaw mën na ko. Euh, sama directeur euh, euh, Mbagnick Diop mën na ko keneen keneen mën na ko bu nu gëmee suñu bopp fonk suñu bopp loolu mooy day gis nga baat bi mu njëkk génnee ci symposium sur sa vie et son œuvre en avril mai 82 maa nga fa woon yëpp séance yëpp laa fekkee ba keroog bi muy nërmeelu di daanu ci kanamu ñëpp laa la wax. Hmm. waaw di dem alerte bu doon première alerte yaa ngi dëgg euh, keroog boobu dafa ne bi mu jëkkee kii ba kàngam yi ko wër ci pressoir wax ci moom ñoom Pathé jaaj ñi fa newoon yëpp ñoom Ibnou Diagne ñoom euh, professeur Adama Diop ñoom Massamba Lam ñoom ñëpp wax keroog bi mu jëlee kaddu gi lu mu jëkk wax mooy la finalité profonde de mon activité intellectuelle vise à la libération mentale, psychique des Africains. Hmm. Sans quoi il n'y a pas de créativité. Hmm. nee na libérer l'esprit créateur africain. loolu la soobu woon maanaam nee na lii ma liggéey yëpp li ma jàng yëpp sama xeex yëpp ngir fexe ba firi firi li nga xam ne li xelu africain yi la firi ko waaw fexe ba ñoom nu fonk seen bopp gëm seen bopp wóolu seen bopp xam ne li nuy fi nu teg tey euh, tubaab yi doxandéem yi japonais yi chinois yi américains yi russes ñoom war nañ fa mën a toll parce que si jamono toll woon nañ fa ñàkk xam seen dëmb rek xe ba dem xeeb seen bopp looloo indi lii yëpp donc loolu la finalité profonde de mon activité intellectuelle mm. vise à la libération mentale psychique des Africains mm. sans quoi il n'y a pas de créativité hmm. te fa toll ba tey ji nii ba tey ji nii fa toll waaw donc loolu laa bëgg wax si nit ki bu weesoo historien bi ñuy wax parce que dem na ba ne ah loolu tamit nu leeral ko gis nga la chimiste la spécialiste en nucléaire yaa ngi dëgg. Mhm. anthropologue la euh, euh, comment dirais-je la. Euh, lépp lépp lu mu def ba licence en droit def na ko ci li nit ñi xamul boo leen liiree l'unité culturelle di nga xam ne kii xam na droit de l'antiquité jàng na ko waaye jarul woon muy wone boppam di fëgg boppam di kii yooyu d'ailleurs symposium boobu keroog ci biir ak askan wi kuré nit ñi toogoon foofu mbooloo mi booba nu koy def amphithéâtre faculté faculté droit fa lañ ko doon defee hmm. day fees del del del del nit ñi di tux di kii yooyu ba loolu yëpp bokkoon na keroog si coono bi ko dal euh, bi mu nërmeeloo euh, jeudi boobu hmm. alors gis nga euh, dafa dem ba ne nanu fexe ba nga xam ne bii li nga xam ne dañ koy liggéey mu am solo muy won ne li muy liggéey yëpp yëpp yëpp yëpp ngir fexe ba jañax africain yi la ñu fonk seen bopp ñu xam seen bopp ñu moom seen bopp préhistorien la archéologue la si jamono 60 bi muy ñëw wër na Sénégal wër sous région bi Mali yëpp archéologie di ko def dem ci euh, nu mu tudd géej bi foofu dex bi bu plage Fanok yor yor luppam longue vue di scruter euh, le ciel di xam ma ne Cheikh daal mu ngi noonu daal man daal mooy sama euh, <laughs> daanaka miroir sama seetu. Mhm. moo foofu lay namp foofu lay kii waaw. Mhm. te am na jamono ay anecdote laa lay wax ni bu dee bëgg nga ko. waaw anecdote mhm. waaw euh, gis nga ci 1982. waaw ca 1982 suuf si dafa yëngu ci Dakar. Hmm. amaana ñu bëri xamuñu ko wala fàttee nañu ko. 1982 waaw waaw suuf si yëngu lu yëngu boo xam ne. Hmm. ñëpp a tiit waaw waaw tremblement ma kaaral ma ñëw kaaral ma ñëw. gis nga man keroog booru dix heures onze heures maa ngi jàngal ay ndaw suñu biir salon. Hmm. ndax noonu laa doon def di leen dajale ñiy pare ay brevet ay bac ma di leen jox ay cours. keroog suuf bu yëngu ba vitre yi li tubaab naan dafa craquelé. Hmm. yëngu vitre yi waaw waaw waaw ci trois heures encore mu loolu amaat. ji hmm. nga bi mu amee. Hmm. ñëpp jaaxle Dakar yëpp jaaxle lii mooy lan lii lii ah yàlla def ci semaine boobu ma yóbbu ay ndaw ndax dama ko daan faral di def yóbbu ay ndaw ñu dem seeti Cheikh Anta laboratoire ci biir waxtaan man maa laaj. ma ko mais fan yi suuf si yëngu na fiit te dañu jàpp ne ah Sénégal. Euh, euh, du fi am tremblement de terre yëngu na parce que ñu bëri nee nañu tremblement de terre la te lu ñu yëg noonu kii mu ne mais ban heure la ma wax ko mu ne ma bon moom euh, c'est bizarre daf ko fekk surement mu doon noppalu def si attention surtout mm. peut-être fi mu dëkk yu mel noonu mu ne mais mu teg si mu ne bu loolu bu dee seetlu ngeen ko te am na laaj leen seen ay xarit yu dëkk Guinée Conakry mm. yu dëkk waaw yu dëkk Côte d'Ivoire waaw mu ne yu dëkk Côte d'Ivoire waaw mu ne Guinée Conakry Côte d'Ivoire maa ngi rappelé u baax. Mhm. mu ne parce que moom moo wax de mu ne parce que dama ragal muy essai nucléaire souterrain ñu ne ko mhm. ah essai nucléaire souterrain waaw d'ailleurs d'ailleurs dafa njëkk a euh, euh, rectifier maanaam mu jubbante sunu xalaat. Mhm. parce que dañ ko ne ah dama ko ne ñun dañu yàq jàng ne ci géographie morphologie bi. Euh, Sénégal mënul am Tremblant de mu ne attention mu ne attention. c'est pas c'est pas tout le Sénégal mu daal di expliquer que la côte expliquer nu mu demee fracture yi la dérive des continents nañu def attention si yenn cas affaire yooyu mu ne mu daal di ñëw nag daal di ne dafa ragal muy essai nucléaire souterrain xam nga mu ne depuis fañ hmm. depuis Nigéria nu hmm. ne ko ah ñun ñëpp ñun ñi nga xam ne dara la ñu xamul ñu xoolaat ko nu ne ko Nigéria mu ne oui mu mu boole si sa gën a xóotal xam-xama hmm. mu ne mën na am sa depuis l'Afrique du Sud ñu ne ko Afrique du Sud mu ne eh mu ne Afrique du Sud fekk jamono yooyu ci 1977 78. Mhm. bind na ñaari article la bombe de Pretoria. Mhm. et l'avenir de notre espèce. muy mhm. bind si affaire atomique bombe atomique Pretoria. le régime raciste de de Vorster de Jan Vorster ni mu doon pare di def ay kii pour tenir en respect. askan bi nekk foofu yëpp yu waroon Afrique du Sud te doon jàppale euh, nu mu tudd l'ANC xeex yi foofu. Hmm. waaw mu ne dafa ragal sax mu doon depuis l'Afrique du Sud. si la ñu ne boo leen amee ay xarit laaj leen mu ne parce que bu amee bombe atomique essai nucléaire souterrain. Hmm. mu ne affaire bi bu dalee. dafay dem par palier maanaam bu bu bu yeggee ci pays riverain bi. Hmm. ah maanaam comme mel ni Angola Namibie. deux heures ou quatre heures de temps après daf ko yëgee nun Dakar. mu ne bu amate yeneen heure yeneen waxtu noonu lay demee par palier mu ne noonu la gis waaw waaw gis nga ñëpp nu jaaxle hmm. waaw ñu seen xam-xam rek mu teg si ne si la ñu ne je vous ai toujours dit que l'Afrique ne nous appartient pas hmm. waaw dans les conditions où nous vivons hein que nous vivons présentement mu ne l'Afrique ne nous appartient pas mu ne nous sommes là comme des fourmis rampantes hmm. waaw comme ay ay ay melentaan daal ay salade mu ne comme des fourmis rampantes qui ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Hmm. waaw mu dellu neenu chaque jour maa ngi rappelé bu baax ndax yàlla may na ma Cheikh dama daan naan xam-xamam waxam yi mu ne chaque jour des milliers de satellites yaa ngi dëgg de satellites labourent les entrailles de notre sous-sol hmm. waaw muy baatu poésie bu rafet laa la wax ci science waaw da yaa ngi déglu ma mu ne hmm. chaque jour euh, chaque nuit des milliers de satellites labour les entrailles de notre sous mu teg si ne et nous comme des fourmis rampantes nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez waaw nii la du ko hmm. si si jamono yooyu laa gën a gëstu xool gis nga rek xam-xam moo tax ma ne la noonu mii dama namp ci ay Cheikh Anta ba toll tey ji fi ma toll ji hmm. parce que loolu xam-xam boobu dafa rafetoon dëgg hmm. rafetoon ngank rafetoon xam ba yooyu gis nga si la gëstu depuis jamono yooyu bay xool asamaan nag asamaan saa yu nekk ñun ñëpp nañ si bàyyi xel. Mhm. waaw li di yaakaar ni biddéew la lu ci bëri du biddéew ay satellite la. Mhm. waaw ñun ñu tiim nag ngank Sénégal ngank Mali ngank Guinée ngank Guinée Bissau ngank Afrique bu ñu sañoon nu wax loolu comme ni mu ko waxee. Mhm. ay satellite yu ñu tiim di xam suñu géej gi yan la banc de poisson loolu wax nañu ko en séminaire idéologique. këram waaw banc de poisson maanaam suñu jën yi weer bi fu ñuy mang mang dem dem ba Nigéria départ dem fii. dem noonu dellu siwaat dem jógee les zones tempérées maanaam ay France ay yooyu et consort mm. dikkaat yooyu muy won ne satellite yi loolu la ñu xam dañ koy xam waaw mu ne or yu nu am pétrole yu nu am gaz yu nu am xam nga tey nu ngi wax am nañu or am na nañu jama am nañu zircon. Mm. maa ngi yóbbu nit ñi di leen wax na nañu jàngi livre Cheikh Anta les fondements économiques et culturels d'un état fédéral d'Afrique noire mu xaatim ko bind ko en 1960. Mm. gis nga li ñuy wax tey jii yëpp wax na ko foofu pour bu doon téeméeri cër la juróom-ñetti cër yëpp wax na ko si téere boobu depuis 1960 lu ko won lu ko may loolu xam-xam jàng xam physique xam chimie xam yëpp waaw nang ko loolu yëpp mu soobu si ngir firi yi leeral n'est-ce pas euh, xam xam-xamu Afrique nit ku ñuul donc loolu la pour won la rek yu mel noonu na si nit ñi bàyyi xel ma ne la depuis boobu laa xam ne li ñuy wax ne bidéew la du bidéew ay satellite du tiim suba ngoon di xam li xew. Mhm. di ko yóbbal seen eh, eh, borom yi nga xam ne du ngi France. te loolu Cheikh Anta alerté woon na ci. ah. ma ni te loolu Cheikh Anta alerté woon na ah, yaa ngi tudd sax li nga xam ne benn article bu mu bindoon. Mm. en 1955. mu mu tuddee ko alerte sous tropique alerte sous les mm. xam nga dafa am lu ñuy wax tropique du cancer. Mm-hmm. ak tropique du capricorne. Mm. yaa ngi dëgg. Mm-hmm. waaw ci ci ci ci science. ci géographie dafa am alerte. Euh, tropique du cancer tropique du capricorne moom Cheikh Anta ci 1955 bind na article boobu doon gis jamono danger bi menacer l'Afrique hmm. waaw ñun ñi nekk ci tropique yooyu gis nga loolu yëpp mooy alerte c'est un alerte c'est quelqu'un qui a alerté l'Afrique hmm. qui a fait ce qu'il fallait faire sunu borom yóbbu ko muy mel ni rek sa sunu borom sa benn moment daf noo xaw a jëppi hmm. daf noo jëppi jox nu koo xam ne kii daanaka addina yëpp bëggoon ko am te mun na ko am waaw mhm. bu ma bu ma sañoon ma fàttali la ne ci symposium sur sa vie et son œuvre mhm. am benn professeur euh, ki ñuy wax Jibril Fall gaañu na ndeysaan physicien la gis nga moom dafa seede ne saa yu demoon ay colloque ay séminaire au plan international mhm. rawatina Afrique mu ne dañ koy xëcc ci bestam di ko xëcc ah nan ko mais yow où est Cheikh Anta Diop qu'est-ce fait au Sénégal mu ne nii lañ koy téye mu ne moom si yaramam dafa daan daw. Hmm. si la xam ne ndeke mu ngi Sénégal la ngi nit koo xam ne maara deytaale addina yëpp a nga ko soxla. Hmm. nii nii nii waaw moom Jibril jo Jibril hmm. moo fàttali ne Jibril Fall boobu lanu dënkoon problème bi nga xam ne ñi may déglu te doon ay kàngam ay mag di fàttali gis nga li ñuy wax l'affaire de Bari Jam. Bari Jam. waaw na nit ñi si nit ñi bàyyi xel. ndax tey jot na tey tamit Afrique moom boppam nu xam lu fu nu dugal fu nu teg sunu tànk ak ñi nga xam ne noo ne noonuy aar te aarunu gis nga bari jaam hmm. dëkk la dëkk la na ko nit ñi gëstu xam nañ ko hmm. euh, Soleil defoon na si reportage gis nga bari jaam fu mu ne fii ci Sénégal mu ngi Sénégal dëkk la village la waaw mës naa ko wax sama ay ndaw kenn ki ñëw indi jox ma sa photocopie euh, article boobu hmm. bari jaam xam gis ma wax la la fa xewoon ci jamono yooyu euh, ay quatre vingt trois quatre vingt quatre yooyu danoo jëkki-jëkki si li témoignage yi am. Hmm. ak sàmmkat yi fa nekk. ñu ne dex bi nekkoon foofu maanaam genre lakk bi nekkoon foofu day mel ni lu doon baax. Hmm. lu doon baax waaw nag yi doon nekk foofu doon kii kii nag yi daw daw xar yi ñëpp daw. Hmm. sàmmkat yi daw. waaw ñu ne même mbir mi jaxasoo kenn xamul lu mu doon. ñu ne fii ci Sénégal la amee mbir moomu. waaw affaire boobu doon du doy waar. lan la ñii après ku nekk rek di wax sa wax échauffouré ay théorie ay. naan ay radiation uranium la yu nu enfure peut-être foofu la te kenn xamu ko woon parce que jamono yooyu loolu dafa amoon. Hmm. jamono yooyu amoon na ay oui ay ay déchets nucléaires dañ ko daan jëlee Europe di ko ñëw suul en Afrique Cheikh Anta avertiroon na si loolu. Hmm. naan nañ def attention si lay wax ne pour que ay yafe uranium. mu diminuer de moitié il faut vingt quatre mille ans. Hmm. vingt quatre mille ans pour bu nu suulee uranium tey sunu sunu gox yi ah ku fa nekk ku fa dëkk boo dalay rey dalay rey waaw pour mu wàññeeku xaaj bi mu wàññeeku il faut ñaar fukki at ak ñaar ñaar ñaar fukki junni ak ak ñeent waaw ak ñeent ngir mu ay génération la ay ah, ah, génération mu ngi noonu mu ngi noonu mu ne si la doon woo autorités yi dañ def mm. attention pour quelques milliards de mauvais francs mm. un malheureux milliard de francs bu nu jaay sunu avenir de notre espèce. Hmm. parce que tubaab yaa ngi sunu kaw bu nu nax sunu bopp. Hmm. waaw ma di gërëm si ay mission yu benn Cheikh Anta hmm. dañ ko war a xam. di ko nemmeeku. dem di ko namp ndax dafa yee nit ñi. moom nag professeur Djibril Fall boobu. bi coow bi bëree ba bëree ba bëree moom la ñu jox. mu diriger mission bi waroon étudier mbir moomu. yàlla def mu génn àddina. lu ko génnee àddina lan la problème bari jàmm boobu mosatuñu ko wax mooy loolu. sunu réew daal nu ngi nii. Hmm. ak Afrique ñëpp. kon ba tey kenn xamul lu mu doon. ah kenn xamul lu eh, yaa ngi nii rajo bee ngi nii tey maa ngi wax ak yow man mi xaw ma fu may mujjee parce que yu mel noonu mu ngi nii. ay mbir la yoo xam ne réew sunu réew la sunu deret la sunu man sunu mandarga la sunu identité la sunu moomeel la hmm. waruñu toog yenn yi di ko caaxaanee hmm. ku mel ni Cheikh nu caaxaanee ko li mu waroon indi Afrique nu caaxaanee ko ba mu génn àddina li mu jàngale nu nu nu ko noot ba dara feeñu si ñuy wax ay waxu caxam ci moom di ko werante di wax loo xam ne jëmalul nit kanam ma yooyu nun ñi nga xam ne nag ay ay ay juróom lañu ay meññeem lañu nun dañuy taxaw di wax yenn yi ci dal ak teey ci yéen nit ñi ci won leen xàll yoon boo xam ne bii war na fa mun a jaar mm-hmm. dama lay fàttali sa ne gis nga bii géej bi bi bi bi suuf si yëngoo keroog noonu Dakar mm-hmm. ah am na benn ministre ci jamono yooyu biñ ko laajee génn àddina nag ministre boobu waaye maa ngi fàttaliku bu baax yàlla bu may wax rek suñu borom meneen yooyu damay fàttaliku di ko xaatim di ko toog mm. suñu mi kàngam boobu ministre boobu jawriñ boobu ne waaw bi affaire yi bëree coow bi bëri laaj bi bëri nit ñi jaaxle mu ne benn essai de missile la sur un bateau au large de Dakar mm. yaa ngi dégg loolu mm-hmm. waaw te loolu kenn mësu ko leeral tamit mu ne benn essai la de lancement de missile au large de Dakar même lancement de missile la topp secret la lu lan la suñu réew lan la mun a nekk yu mel noonu te kenn xamu si nit ñi toog daanaka daal ñu ngi toog daal si euh, xaw ma daal lu ñu toog daal si mm. daay waaw mu ngi noonu daal gis nga li ñuy wax tey ji yëpp du tey la tàmbalee yàgg na yàgg na yàgg na réew daal pour dal wax lii Cheikh Anta wax suñu réew ça ne nous appartient pas l'Afrique ne nous appartient pas nous sommes comme des fourmis rampantes waaw ñu ngi dox ci kaw alal te xamuñu sa lan la doxande bi muy joge foofu hmm. nee nu fii am na lii fii am na lii nu soog a ne waaw dëgg la dëgg loolu gàcce la. Hmm. juróom benn fu at ak ñett bi nu moomee sunu bopp ba tey. Hmm. kon nag nuy laaj sunu bopp ndax moom lañu sunu bopp ba tey. Hmm. waaw. Cheikh hmm. scientifique la woon euh, jàng na itam science sociale euh, mais historien bi niñ ko waxee sànq moom moo gën a fës mu joxoon solo lool nag njàng mi ñeel cosaanal africain yi. ci ci ci Égypte surtout. lan la Cheikh Anta Diop jublu woon foofu dëgg-dëgg ci ci njàngat yooyu mu doon def euh, professeur. waaw xam nga Égypte moom <coughs> si jamono. Égypte dañ ko jàng jàng jàng jàng tubaab yi di ko jàng di ko jàngale waaye mu mel ni dafa am lu ñuy nëbb waaw ndax lu nu lu am ci àddina ñoom seen bopp dañu ne Égypte waaye toujours duñ ko duñu jiital Égypte dañ koy boole rek ci li ñuy wax Grèce Rome la Phénicie l'Asie yu mel noonu waaw Cheikh ma mës si waxtaan ak euh, rakam mbir di Tafa Diop Tafa Diop nee ma euh, Cheikh wax na ko ne kañ la tàmbalee ne ñi mu gis nii nii nii nu wane nii ay pharaon yi ñii ay nit ku ñuul la nee na booba mu ngi jàng lycée Bambo di xale adolescent mu romb benn librairie euh, ngay baal ma si tur bi du publicité. Hmm. lib waaw librairie bi mu ngi jàkkaarloon ak fi ñuy wax kër sëriñ kër sëriñ bi Dakar. Hmm. foofu kër sëriñ bi. librairie bi defe naa El Hilal la tuddoon bu ma fàttali ko. Hmm. mu gis ne dañ fa teg ay téere. exposé ko. Cheikh Anta ne bi muy dox mu romb mu xool photo yi xool en couleur. mu ne mais kii ñii ñii ay nit ñu ñuul lañu nee na moom si jamono boobu la tàmbali mu ne mais lii dafa leer ay nii ay pharaon yi ñuy wax nii ay nit ñuul la. Hmm. yàlla def mu jàng ba dem Europe gën a gëstu gi xool mais mu gis ne lii yi leen jàngal yëpp ay nax sa xandang la maanaam ay balivernes la. Hmm. waaw mu gën a gëstu mbir yi. te gis ne lii liggéeyu tubaab bi lii soxlaam mooy fexe ba nit ku ñuul du xam boppam du fonk boppam day xeeb boppam hmm. ci kanamu tubaab. xam nga xeex ba mu ngi fi ba tey lu ñuy wax d'actualité ba tey ci nii mu ngi fi. Mm-hmm. waaw ndax ñàkk fonk suñu bopp mooy indi yu bëree bëri bëri damay tooñ sa léeg-léeg samay étudiant ak ñeneen ak ñeneen man boo leen wax cheveux naturel man leen baat boobu jubul. Hmm. baat boobu jubul bu leen wax cheveux naturel da ngeen di wax hmm. cheveux artificiel. Hmm. waaw da ngeen di wax cheveux artificiel ndax li ngeen li ngeen yor nii du seen bos. du seen bos da ngeen ko jëlee feneen indi ko teg seen kaw bop waaw dëgg la usines yi dañ koy defar waaye yenn yi sax usines yi defar lu ko. ay nit yu dee la ñu dagg seen garaw mbaal ma moom parce que dëgg moom dañ koy wax ay nit yu dee ci Asie ci France. balaa ñu leen di incinéré balaa di nu dagg seen karaw defar ñoo jox leen ba ngeen di filitaru di kii ma ne loolu yëpp ñàkk xeeb xeeb suñu bopp moo mm-hmm. indi lii yëpp mm-hmm. yaa ngi dëgg alors Cheikh Anta gis xeex boobu ne am na solo et lu si jublu d' abord mooy nitu science la nit da ngay wax dëgg dangay namp dëgg delloo dëgg askan wi mu gën a gëstu loolu mu gëstoo loolu mu gis ne mais waay sa mais li lii mais wax dëgg yàlla lii yëpp ay ay tappale la mm-hmm. waaw mu gën a gëstu nag si la dem ba bara def teesam si mbir moomu waaw bind si nag bind si bind ci lu bëree bëri bëri ah mais yàlla def nit ñi xam ne kii ci kàngam yooyu la bokk ah Mamadou Makhtar Mbow di sunu euh, sunu papa sunu mag sunu maam nekk directeur général UNESCO depuis le doyen René Maheu bi ko jiitu woon mais nu war a bind sur l'histoire générale de l'Afrique nu woo ko ne ko nag da ngay bind da ngay bind sur la race des anciens égyptiens ndax gis nañ ne xarañ nga si trop trop trop waaye gis nga woyofam rek. Mhm. mënoon na ko def mu jeex waaye mu ne déedéet déedéet loolu du am loolu dafay yomb trop. ma bind nii bind samay waxtaan samay conférence samay bind samay téere <laughs> ma loolu leer na si. Hmm. waaye nag comme am na ñoo xam ne ñu xarañ tamit. armée comme il dit d'une férocité extraordinaire ah et même d'une haine extraordinaire contre la race noire te ay kàngam di bind ne lu muy wax yëpp du dëgg Cheikh Anta ay ay day lépp day nangam nangam égyptien musul nekk nit ñu loolu yëpp dañ si jublu ne bés bu nu nangoo ne égyptiens yi nit ñu ñu lan te noo tabax li ñuy wax nii noo indi science noo indi médecine hmm. noo indi philosophie noo indi xam-xam boo gis si àddina musique art lépp peinture tout sculpture ah kon bu boobaa ñii dinañu yeewu ñii nga xam ne nun hmm. tey dañ leen noot hmm. jàpp na kii ñii dinañu yeewu donc nañu fexe ba loolu moo te ñoom ñëpp di def seen ay daje seen ay colloque am sa ay dunguru seen ay dunguru yu nekk Afrique rawatina fii sunu réew ba tey ji nii moom laa la wax. Mm-hmm. mu ngi fi di ko bañal loolu. Mm-hmm. Cheikh Anta ne nag ay waaw waaw Cheikh Anta ne mais mun na def loolu yomb na mais du def. mu ne ñoom Amadou Mokhtar boobu xam ngeen li ma bëgg. Mm-hmm. Euh, dama bëgg ñu dajee def dajee. ngeen woo ñi nga xam ne ñëpp d'accord nu ak sama gis-gis d'accord nu ak sama gis-gis samay démonstration ngeen woo leen ñu ñëw nu dajee. te nag du dajee fépp de du France du euh, Italie du Allemagne nañu dajee Caire Égypte waaw Égypte fii pharaon yi nekk fii momies yi nekk fii papyrus yi nekk fii euh, temple yi nekk fii lépp nekk nu nekk fi mën fii def ay descente ay voyage ay visite yooyu yëpp et constat nañ fa daje te nag ñaan naa leen na ngeen leen invité ñi ñoo leen mën a am bu dee cinquante la nu baax na bu nu weesoo cinquante ak baax na man daal ñaar laa soxla mooy professeur Obenga gën lukki ku woon jamono yooyu soogoon xam Cheikh Anta hmm. ak professeur Souzan euh, Souzan muy togolais moom it nekkoon koo xam ne xarañoon na ci égyptologie hmm. waaye kooku mujjewul ñëw am na ay contrainte maanaam nin ko xëbalee nin ko kiyee ba nanguwul ñëw Obenga daal moo ñëw mu ngi fi ba tey sunu borom mu ngi koy may mu gudd fan di ko ñaanal mu gën a wéy si biir hmm. waaw ak Cheikh Anta ñoo ñëw Cheikh Anta si jamono boobu sax ñaan na euh, Bara Diouf mi nekkoon directeur général Soleil ngir mu yónnee nit ñu ñëw fekk si ko fekkee colloque bi mais Baara ne way ci jamono loolu duñ ko wax dañuy wax yeneen wax déedéet ci njëlbeen duñ ko waxee Baara Baara gisee ak ki nga xam ne moom la war a gisee ah nu indi ay benke-ñenke ne daal day jafe day nii ak nii ak nii waaw ah Cheikh ne en amul problème nan dem daal li am solo mooy na daje bi am àddina fekkee waaw ba noonu mujj bi la soleil yónni Papa Ahmed Diop Papa Ahmed Diop nga jàpp bu baax turam Papa Ahmed Diop. Mm. doon journaliste ci jamono boobu ñëw fekkee mbir yi waaye gis nga Papa Ahmed Diop li mu wax si li li mu tënk moom da ngeen seeti soleil archive yi na bi mu fekkee lépp lépp lépp démonstration yi contradiction yi ñangam nangam hmm. nee na wax dëgg yàlla ah mu bind avec son disciple Théophile Obenga hmm. Cheikh Anta Diop a à un Pelé Pelé roi du football bu gaañu bu yàggu hmm. nee na Cheikh Anta un Pelé hein au football avec des garçons de quartier nee mm. na tellement il était à l'aise dans ses démonstrations waaw et même dans les visites à Medina Abou à Karnak à Memphis à teb nee na dafa mel ni mais saway moom ak euh, euh, nu mu tudd taalibeem euh, Obenga dafa mel ni pëlee ñaari ñaari pëlee di football ak ay ndaw ci quartier bi tellement ni mu leen doon dribblé bu téye bal bi ni mu leen doon dribblé ñoom ñun laal dara ndax daf leen a sutoon lool lool lool lool lool ci mbirum xam-xam ci mbirum égyptologie moom Papa Amir Diop moo seede loolu ci soleil si jamono yooyu waaw loolu rek pour woon ne euh, nit la koo xam ne ah wax dëgg yàlla du ma ci delluwaat di ko bamtuwaat maa ngi koy namp daal moom laa mooy sama kilifa ci moom laa xam bu gaañu di woote ñeneen man moom lay woote mhm. waaw te danga ànd seeg pas loolu lim lim si jublu woon mooy li ma la wax ci njëlbeen keroog bi muy jëkki jël kaddu bi di tontu si symposium bi sur la finalité profonde de mon activité intellectuelle vise la libération mentale psychique la psychologie psycholo la science du comportement li waral science du comportement bi am na loo namp nunu la gëmloo ba nga gëm loolu donc vise à la libération mentale psychique des Africains sans quoi il n'y a pas de créativité mm-hmm. si lu bu nu bu nu firiwul bu li noot li nu gëmloo ba nu xeeb suñu bopp ba fonk nu suñu bopp suufeel suñu bopp ci kanamu doxandee bi tubaab bi dara lan dul mun a sos dara lan dul mun a créer mm-hmm. moo waral tey suñu ay dëkk li Cheikh Anta doon wax dans des nu complètement nu hmm. sans industrie véritable qui puisse concurrencer les autres dara lan fi amul ci ay usine si ay leneen ak leneen la dara dara dara dara dëgg la am na ay ay luñuy def nu ngi nu ngi góorgóorlu nu ngi kii waaye euh, góorgóorlu bi du woon tey yàgg na li nu fi aw yof colonisation bi ak yeneen lu nu liggéey sunu maam yi lu nu fi liggéey waroon na mun a si juróom benn fukki at ak yi mu toll foo xam ne bi daanaka Sénégal lu mu doon wax ce serait un paradis sur terre l'Afrique de manière générale hmm. ndax àddina lépp la nu may gëstu na sur le solaire le solaire booy wax Cheikh Anta te waxoo solaire sax hmm. daanaka am na lu des ndax loolu def koo gëstu la solaire tey ji nii courant bi ñuy wax leneen ndox mi ñuy wax am ko suñu suuf am ko léeg yow ah, israéliens yi mu ngi ci désert le désert du Negev désert nga xam ne ay cinquante soixante degré lay def suuf la israéliens yi génnee fa ndox ba ñëpp di am ndox bu sell bu neex ñun fii mu ngi taw a taw a taw ba mu naan inondation hmm. waaye saa yu nekk deux mois yu nekk trois mois ñu ne gox bi am na coupure ndox am na léeg lii loolu du gàcce waaye waaye nañu xoolaat suñu bopp loolu nag Cheikh Anta daf see wax barrage hydroélectrique le barrage de Diama et de Manantali waxoon yàgg na ko wax le barrage de Gouina la doon wax sax foofu moo gën a am solo buñ fa defoon barrage bi le barrage de Gouina ak le barrage de Dagana. Hmm. Dagana si boppam fa la ñu waroon teg barrage bi si ni ko jàngi woon ndax yooyu yëpp daf koo jàng ba ma ne Cheikh loo xalaat jàng na ko waaw ndax loolu yëpp fiiri jox kattan euh, fexe ba nit ku ñuul fonk boppam moom boppam li si des nag ay débat yoo xam ne soxalul woon Cheikh Cheikh mooy yee askan wi askan wi demal boppam loolu la nee na boo leen bëggee après ngeen critiquer ma man man critiquer ma leen def leen lu nekk waaye man li ma soxal mooy ngeen fonk seen bopp ngeen xam seen bopp. xam ne musu leen suufee nit ku ñuul musul suufee te tàmbale ko ci Égypte le premier état noir waaw loolu la léegi nag indi ay yeneen ak yeneen yooyu daal doon woon ay mbiram loolu kooku mooy Cheikh Anta encore une fois. Mm-hmm. alors Cheikh Anta itam def na politique taxawal RND. muy parti mm-hmm. boo xam ni euh, ba tey mi mm-hmm. ngi fi donte kenn déggatu leen euh, xëy na niñ leen euh, waroon a déggee. mais vision politique bu Cheikh Anta ci Sénégal lan la woon professeur Fall. ah vision boobu de ñun si la nekk ba tey waaw mooy fexe ba xel yi dal nanu dal nanu dal politique munoo ko def te amuloo conscience conscience citoyenne conscience politique waaw mën a doon loo xam ne da ngay yee yeewu yeewu yoo yeewu si bopp yow yeew am xam-xam ah namp xam-xam pooju si xam-xam ba war a yee ñeneen nga doon koo xam ne daanaka royukaay ngay doon royukaay ngay doon si anam yu ne nag mm-hmm. waaw yu ne mooy fàttali baatu euh, président Abdou Diouf homme d'une rigueur morale jamais prise en défaut waaw Cheikh Anta Diop a symboliser vraiment le génie l'homme africain kooku mooy idéologie li mu jiital si mbirum politique politique pour Cheikh Anta du wut alal du wut alal du leneen ak leneen am na fi kàngam bu fi nekk ba tey toog na dem laboratoire Cheikh Anta ci jamono yooyu ndax Cheikh Anta du RND bii nga tudd rek moom la kii déedéet hmm. bi mu jógee tugal ba ñëw dafa xam ne li muy woote yëpp yëpp yëpp yëpp munul am li fekk sampul kuréel boo xam ne bii politique la waaw il fallait investir tout son énergie toute sa vision d'un développement futur dans le cadre d'une structure politique mu looloo tax bi mu jógee tugal mu ñëw mu ne lii il faut mu samp kuréel boo xam ne bi day ŋànk day euh, euh, jàngale mbirum politique ngir tabax réew rawatina Afrique si la créer le BMS le bloc des masses sénégalaises waaw bloc des masses sénégalaises. Mm. waaw ay kàngam yu bëri am na ñuy dund ba tey ñu fi nag ñu bëri mm. génn nu àddina mm. waaw ñu dem ba ci biir sengoor interdire parti boobu. ndax fexe na ba jëlee fa ci parti bi ay kàngam. ñu ñëw fekk ci ko ci UPS. mu teg leen ay kàngam ay ministre ak yeneen ak yeneen ah daal di ne daal di génnee benn euh, genre article bu ne loi bu ne un parti dont la majorité de ceux qui composent son secrétariat n'est-ce pas, ont quitté, n'est-ce pas, et avec lui, bi BMS. gis nga euh, euh, xaw ma nu ñu koy wax antidémocratie yàgg na am Sénégal. Hmm. waaw waaw donc science politique il faut nit ñi di ko jàng. Hmm. il faut nit ñi di gëstu ndax histoire c'est un c'est c'est une lanterne dafay éclairer di wax. Hmm. li am tey du tey waaw. non du du lu bees amoon na fi. du lu amoon na. moo may booleeg ñu bëree man leen def leen ndànk dal leen. boo def analyse politique scientifique. nangeen ngeen xam fi ngeen teg seen tànk na ngeen analyser mhm. lii du leen bett mhm. yaa ngi dëgg waaw mu dellu créé waat un autre parti politique ñu tuddee ko le front national sénégalais mhm. bu na nga xool Cheikh Anta rek li muy créé yëpp ay rassemblement la des masses sénégalaises ñu interdire ko mu dellu créé waat si 63 le front national sénégalais FNS front maanaam dajale beaucoup de tendance yaa dëgg PRONASA Senghor dellu interdiraat parti boobu. Hmm. waaw waaw waaw ci 1966 mu interdire ko. Hmm. Eh, moom it ñu bëri trahir ko mooy li muy wax il faut un code de conduite un hmm. code d'honneur waaw toog tey def ay campagne ay militant ay conférence ay nangam nangam yëkkati réew mi askan bi kërëb kërëb ñu topp la nga jékki-jékki nga li muy wax nga suppu jalañ nga supp jalañ jógee sa ndeyjoor dem sa càmmoñ jógee sa càmmoñ daw beneen yoon daal di nax say nit ñi nit ñi jaxasoo ba ñuy découragé bàyyi politique ñu bëre fa doon bàyyee politique dinaa la wax benn anecdote sa boo xam ne mm. eh, kooku magu kilifa bi Ablaye Wade moo ma ko wax mm-hmm. amadu Moustapha Wade mm-hmm. yaa ngi dëgg ndax dama def émission ak moom damaa def émission ak moom moom suñu pap jooju eh, amadu Moustapha Wade mu ne ma militant la woon bu BMS Cheikh Anta jóge fa bu BMS jóge fa nekk bu FNS dafa fekkee mbir yooyu mm. nee bi yooyu amee parce que nee na dañoo toog dañoo toog nii ma ma wax la lu leer neen moom moom si boppam wax ko Cheikh waxoon na waaye yegguloon ci biir. Mm-hmm. waaye moom ci émission bi moom Amadou Moustapha Wade mu ne ma danoo toog kër Cheikh Anta def réunion daje nii. ñu mm-hmm. wax lépp ba décider. nee na ci guddi boobu journal télé journal parlé huit nee na liim membre gouvernement Senghor. ñu mm-hmm. lim fa ñi nga xam ne ñu bëre bokkoon na nañu ci réunion bi ñu defoon nii nii nii. kër Cheikh Anta tey nee na mu jaaxle nee na ñu bëre trahir dem. Hmm. fekki Senghor waaw nee na si la dem fekki Cheikh Anta laboratoire ci ëllëg si. Hmm. mu ne ko Cheikh mu ngi lay ma ngi lay gërëm lool lool lool yow. non non non mu ne yow jàmbaar nga yow nii ak nii lu mu waxoon mu tagg si Cheikh Anta ko dina la wax benn affaire man nag bàyyi naa politique yow yow yow am da nga yow da ngaa dëgër da ngaa hmm. kii ba te la ciy gërëm waaye man mënu ma ànd ak ñoo xam ne wax dëgg yàlla. suba dañ may waraat man sonn naa tay naa si. Hmm. waaw moom moom kilifa bii Amadou Moustapha Wade moom ko wax. Hmm. maa ngi band bi yaa ngi dëgg. waaw donc yu mel noonu. Hmm. du ma wax nag rajo bi ma nekkoon. ba doon ko def kii yooyu consort donc pour te dire rek nee moom Cheikh Anta yoon mu créé parti politique mu demee noonu. ay kàngam ay kilifa ay muskalaf wax baat boobu sax mu ngi wax ay muskalaf. ah di jéggi seen kaddu kii yooyu consort alors ba bi muy créé RND yooyu dafa am. nee na si dem ne il faut un code de conduite. Mm-hmm. ñu bind xaatim loolu askan yëpp xam ne lii la bind. Mm. te nangu am am am vraiment ngor di doxal loolu. digganteem ak Senghor aussi xawoon na metti lool ay temps. waaw mooy yooyu yooyu yooyu rek alors gis nga nee na pour pour jekkali li may wax ni mm. euh, nee na si mujj toog mu ne l'honneur maanaam ngor mayatuma woon mm. si li ma dund si jamono yooyu si diir bu gàtt. sos ñaari parti nit ñi ay ay ay muskalaf di di si man dem ci li nga xam ne lii moom lañ doon bañ. ñu nekk fa mu ne ngor meewatuma woon ma sosaat beneen parti. day mel ni damay foo damay foo ak askan wi. Mhm. Eh, waaw te man sam bopp man sam bopp euh, euh, fonk ma sam bopp si la toog ba mu ne dootuma créer po li feek kàngam bii di Mamadou Dia. Hmm. ak ay ñooñam ay nawleem génn nu prison. waaw mu ne ñoom laa mën a wóolu dëgg dëgg dëgg am na nag ñeneen ñu fi nekk. waaye ñoom laa mën a wóolu dëgg dëgg ñu ànd lëkkaloo ngir soppi li fi nekk. yaa ngi dëgg. Hmm. ba looloo tax bii Mamadou jaa xaar na Mamadou Dia génn prison 74. le temps ñu gën koo libéré yëpp yëpp yëpp yëpp. Hmm. def amnistie bi génne amnistie bi yëpp. bu boobu si la taxawal le RND rassemblement national démocrate gis nga rek. Hmm. ay ay regroupement. Hmm. ay regroupement waaw dajale rek dajale rassemblement. Hmm. moo xam nga woote wu marxisme moo xam nga woote wu le guévarisme. moo xam nga woote wu maoïsme. moo xam nga woote wu nationalisme. moo xam nga woote wu bourgeoisie patriote nationale. ñoom daal nañu ñëw ngir soppi lu fi nekk. te mbir mi comme li ngay wax ak Senghor. du mbirum Senghor du mbirum nit. Hmm. loolu tamit dañ koy jéem a tappale di wax ay wax yoo xam ne yóbbu wax bi feneen. Hmm. Cheikh Anta du mbirum nit reconnaître na Cheikh euh, Senghor son intellectualité. Hmm. hein sa profondeur de poétique de pensée yaa ngi dëgg. waaye mu ne fi mu yóbbu Sénégal fi mu ko bëgg yóbbu. politique am la àndul waaw àndu si tey àndu si suba. nee na bu waat Senghor recevoir na ko nu toog waxtaan Senghor. proposé ko quatre postes de ministre. Mm. bind na ko kenn weddi ko te moo am. Mm. quatre postes de ministre Amadou Moustapha Wade bi ma lay wax magu euh, kii kàngam bii di Abdoulaye Wade wax na ko. Mm-hmm. quatre postes de ministre ak vingt postes de député. Mm. alors ja jamono boobu euh, assemblée nationale bu ma juumul quatre vingt député la woon. xaw ma soixante mu jox ko vingt postes de député. mu lank yooyu mu ne ko li ma soxla mooy nga tëral programme bi nga xam ne bii. boo ko doxalee man sam bopp may nekk sa baay faal. waaw loolu la ko waxee may sa baay ku war bëgg yegg si yow si man lay jëkk jaar mm. balaa mu yegg si yow te du fa yegg du bu sa yegg si yow mm. ndax da koy doxal mu doon programme boo xam ne sart boo xam ne tëral nga ko askan wi dina ci si boppam te dana naw li ndax bu boobaa mm. Sénégal day doon li xam ne day naat day naat day naat si Afrique waaw te fa la ñuy jógee Afrique si boppam euh, wóolu boppam xam boppam ah, naw boppam ba vraiment Afrique doon loo xam ne urus la ci àddina noonu la waxee Senghor donc loolu la c'était un débat programmatique mm. un débat programmatique mm. moo tax ba tey ji nii ñi nga xam ne waaw daanaka daal mel ni dañoo am feebaru xel wala feebaru bopp mm. ñaan bii moo nekk suñu biir ñaan parce que tamit loolu moom nañ ko wax ci kaw a kaw ndax de mel ni dañ koy ragal a wax ñun daal dafa mel ni dañoo tuuf tuuf feebar boo xam ne feebaru iñaan la ah du nangu suñuy nawle mm-hmm. ki nga bokkal ki nga bokkal xeet bokkal népp bokkal mm-hmm. réew mm-hmm. mu am xam-xam mu sut la mm-hmm. ngay wut toujours daal li nga xam ne bii da ngay wut daal pour indi ay toox yi doon seen diggante du problème mu Cheikh Anta ak Senghor musul doon problème mu nit te du ko mës doon waaw donc loolu problème mu programme la bu mu tëral moom depuis étudiant na nga nga dellu nanu dellu liiraat article yi mu bindoon jamono yooyu pour wan ne kii programme la bu mu gisoon nan la ñu xalalee yoon bi xalal yoon Afrique rawatina sunu réew di kii. Mm-hmm. dellu wax si ne ba tey ji nii nun ñii nekk ay doomam ay produit loolu lañ gëm sans la fédération aucun état africain n'est viable. Mm-hmm. bu nu nax sunu boppa mm-hmm. xëy na di nga dund nga ne ah man de am naa quarante ans dinaa nekk poste ministre poste député poste PCA poste lii waaw dëgg la waaye askan wi. Mm. suba Afrique nekkul ci sunu micro état yi dañuy nax sunu bopp. tey ji nii. ñëpp ngi commencé yeew ci loolu waaye am na nu koy doxalee. Mm. nu ngi tappale rek nekk si yeneen ak yeneen. li may wax le tappale national. Mm. moo fi nekk ba tey rek. Mm-hmm. tappale rek waaw. mais fédéralisme mm. waaw. jërëjëf professeur El Hadj Amadou xam naa ne Cheikh Anta Diop moom euh, li ñu ci waxul moo ëpp fuuf li ñu wax. ci lu lépp mënuñu ko cee tënk dañoo jéem a cof fu nekk rek ngir delloowee ko ko njukkal. fanweeri at ak juróom-ñaar gannaaw bi mu mm-hmm. génnee àdduna ndax mi ngi euh, dëddu juróom-ñaari fanweeru février. ay bés bi ñu génn ci lañu ko doon euh, fàttaliku. ak xew-xew yu am solo ca ceytu di ñaan yàlla yeesal yërmande moom euh, dolli ko ay xéewal te jéggal ko ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci waxtaan wi waaw Fatou waaw ba ma meewoon mu nuyu tamit di gërëm ndaw yi nga xam ne nooy dox Dakar ceytu ay ca waaw muy lu am solo aussi la marche de ceytu dëgg yàlla mm. ñooñu Euh, defal naa leen ñaari waxtaan daaw ak mhm. ren ji mhm. nii Blaise Blaise mhm. waaw boobu nag ci ay ñaar fukki at euh, ñaar fukk fan ak juróom-ñeent ci weeru décembre xam nga ci la ñu ne Cheikh Cheikh Anta si la ganesee àddina waaw defal naa leen waxtaan ci Blaise Senghor euh, daaw ak ren ji nii naa leen waxtaan daawit ak daaw jéeg ci usuy parce que ñu xarañ lañu dañuy raw Sénégal di ñooñu wax dëgg yàlla gis nga ku mel ni Cheikh Anta mm-hmm. musul yor nguur mm-hmm. musul nekk kàngam ci gouvernement musul waaye xoolal tey ni ko nit ñi di sargalee mm-hmm. surtout ay ndaw ay ndaw immortaliser ko muy am solo waaw waaw gis mu ngi noonu mooy loolu mooy li mu ji du nax saay waaw du nax saay maa ngi leen di gërëm ñoom ñoo ñëpp doxkat yi marcheurs yi Dakar ceytu jërëjëf jërëjëf professeur El Hadj Amadou Fall ñu lay gërëm bu baax a baax yow itam euh, Cheikh Anta Diop nekkoon nit ko fréquenté koo jëflanteel lu bare bari oh. la ngir delloo ko njukkal naa ne bés dinañu am occasion defal ko lu gën a rëy lii ndax euh, yeyoo na ko ngir euh, lu baree bari loo xam ne gindi na ci nit ñi mais aussi njàng mu am solo mi nga xam ne àdduna yëpp nangul nañ ko ko ak xam-xam bu euh, sell bi macha allah ñu ngi gërëm ñu doon déglu ñëpp di gërëm itam jaaw jàll mi fare woon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu gi ñu leen di dig daje beneen dimanche incha allah waxtaane leneen ak keneen ci démb ak tay yendu leen ak jàmm